بسم القديم تي ني دلو ماغال ماغال لا ماغاي تقراو با اغال ني نم تفتح علينا نغا ديم نو بوك نو بوك نو بوك نو عندك يوم واي فسالني teral lu tedd day waral ak tedd tawel lu jëm kaw day fegal ay yedd bisu qasida yi jagnal ñu bepp lor ñoddil ñu ay xewal fayal ñu bepp bor Seex Amsa Mbàkke sahibu tafdiini faqa jamia jiili fi tabjiili Seex Amsa Mbàkke sahibu tafdiili faqa jamia jiili fi tabjiili Seex Amsa bàqu raw nga fi sodani ci fonku yi qasida ak bii daani bi ya ko ca kaw ñepp di seen tiis ak lor yow teewul laa dëggal di been kaweeg sa yitte moo waral sa lépp tey tuumay maraaxib yaa waral tey lépp fay kawe nga ngir jaalibatul maraaxibi fi aajilin ka aajilin li raaxibi xaas ngeen am ku bëgg tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am li raaxibi jolli nga ngir nooru tegal daarey ni fi xidmatil aami anil aarey ni jolli nga ngir nooru tegal daarey ni fi xidmatil aami anil aarey ni jolli nga ngir nooru tegal daarey ni fi xidmatil aami anil aarini béglee ka bégle tax ñu lay yoqamti ko giseen la yow ca kaw ci sa rafet jikko dëggal nga yaakaari sëriñ Sohaybu dëggal nga Seex Saalix amoo ay aybu dëggal nga yaakaari sëriñ Sohaybu dëggal nga Seex Saalix amoo ay aybu ndigal nga def digal mu lay sànni ca kaw dëggal goneeg la tax ngay gën a raw di nag durus akay sikar ci sa kurus ci yi nga saxtaloo di def luy taxarus gayndeen yoloor nga buur la yow sab àll amul ku lay la jël wayal ba jàll feeñal la feeñ rek a waral sa lépp feeñ ñëpp a ngi daw wut si la ngir bàmba nga xeeñ feeñal la feeñ rek a waral sa lépp feeñ ñëpp a ngi daw wut si la ngir bàmba nga xeeñ santal ci may yow wayal ba àggal ci barke yi xasida tax ngay màggal santal ci may yow wayal ba àggal ci barke yi xasida tax ku dib durus katub xasiida yal na am lu fawxa ak njortam ci bàmba may mbégam lu bàmba am ci mbégte yal na wala ngaan ci seeni kaw luñ song yàlla nanu ko daan te qawluna muhammadul aminu qaadalana alxadimu ma yabinu bi jaayi man jaala kulla man yalus bihi mubaadun an illasi naus alhamdulillahi ala alxadimi dil judi wa tabdili wa taqdimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin yàlla nga fi yàgg barke sëriñ Bassirou yàlla nga fi yàgg barke Serigne Bassirou yàlla nga fi yàgg barke Serigne Bassirou